acca baax na c'est bon waaw euh, manifestation yi ñu wax ne moom la ñuy jëbal incha allah danañ ci danañ ci continuer waxtaan ak ñu ñu ciy waxtaanal mooy ñeneen ñi nga xamante ne ñun ak ñoom ñoo nekk ci mbedd mi saa su ne waaye buñ ci paree rek ba noppi ba war koo jibal di ngeen ci am information yëpp waaye xam naa ne yàggatul festation yi nag comme suñuy waa ji ni mu ko waxee li ko wundu du rek kilifa ndax yoon a ngi jeng 2015 lañ ko lancé woon ci jamono yi waa Colobane ya ci yi bi nga xamante ne Macky Sall mi ngi commencé di gis ñuy gis manipulation bi am ci biir justice Sénégal ca lañ njëkkoon wax yoon a ngi jeng boo xoolee internet bi nga ko gis kon du tey lañ ko tàmbali waaye c'est vrai c'est vrai kaaw kilifa bi dafa ñëw dëggal ko. moo tax ñu war a jëmmalaat yoon a ngi jeng boobu pour wàccaat ci tali bi parce que à travers kilifa mun nañ cee jaar fajaale problème wu yeneen yi sénégalais yoo xam ne ña nga ca situation bi kilifa tollu tey looloo waral loolee et nous sommes très à pour le dire beneen bi mooy euh, waaw xam nga ceer bu fekkee dafa nekk ci biir kaso lu nekk ci téléphone am génn ñett nit ñoo ko mën a génnee mooy avocat am la wala gendarmerie la wala waa parke la ñetti ñooñu rek foofu rek la mën a jaar. kon mën nañu bañ ci Thiès. lu ñu yaakaaroon ci Thiès xaw ma nag lan ngeen yaakaaroon ci Thiès sincèrement. comme dafa loolu du ci dugg du ma dugg ci lu loo xamante ne ci dossier bi la nekk loolu du ma ci dugg duma ci sori li ma mën a wax daal mooy ne jàpp nañ ko ci kaso bi ci ginnaawam ñu ngi ko jàpp le 14 juillet première vidéo mi ngi génn le 24. juillet donc am na fukki fan ci diggante bi ñu ko jàppee bi video yi di génn kon ka yor yi ba génne ko kooku moom la ñuy protéger jamono ji moom la ñuy bañ nit ñi xam ko parce que bu ko nit ñi xamee Aliou wax na la ko benn pièce la ci puzzle bi lu bëri dana leer ci dossier bi kon lu tax ñu koy protégé ak kan moo koy protéger na cybercriminalité def liggéeyam ñun loolu rek lañ ñaan loolu lañ wax ndax ñun ay noonu leeral lañ ndax dañoo duut baaraam leeral non duutuñu baaraam leeral leeral média la c'est un média bu am bu jot information diffusée la ko ci daan wala la ko ci dul daan loolu moom ak yoon li yoon wax ci texte yi wax loolu bu yeggee mook yoon ci texte yi dañ ko wax loolu ñun amuñu problème ak benn média te duñu am problème ak média parce que média yi seen rôle ngeen di def mais nag bu ñu yeggee ca cappaandaw ga comme mënu ma cee wax ci mbirum dossier bi foofu laa ci mën a yem ci jamono ji foofu laa ci mën a yem. Euh, euh, euh, beneen mbir bi beneen mbi bi bi. c'est pas une beneen beneen mbir bi bëggoon naa ci taxaw trop parce que yàgg nañu assimile affaire ñoom kilifa bi ak affaire du député yi te ba ñu defee l'enquête ca biir dig ci ñaari waxtu xam nañ ne ñaari affaires yi bokkut parce que tamit kilifa vidéo bi génn depuis juillet ñu ngi ko soog a oo 7 septembre 8 septembre lañ ko woo. parce que le 6 septembre affaire wu passeport diplomatique yi ci député yi ñu ciy tudd dafa éclaté ñu bëgg a créer seen contre-feu bëgg a indi lënt lënt ak lëndëm lëndëm ci xelu sénégalais yi looloo tax ñu woo kilifa tey jii suñ tuddul loon ay député ci mbirum passeport diplomatique góob ne dinañ oo kilifa. parce que amuñu élément boobu noonu parce que vidéo yooyu noonu c'est irrecevable devant la justice kon ñoom procureur ñoo la gën a xam li ñu def vidéo yi ñoom xam nañ ne c'est illégal nga woo ci doomu aadama waaye. pour créer seen contre-feu parce que wax nañ ay député Benno Bokk Yaakaar ci mbirum passeport diplomatique te dégg nañ ci vidéo bi mbirum passeport diplomatique ñu jéem a créer le lien mais bi ñu l'enquêté xam nañ ne amul lien leer na la preuve bi kilifa ak Simon di génn dig ñi leen di yóbbu parke lañ wax mooy escroquerie kon bu kenn indi ci amal amalgame boobu di wax naan dossier passeport ak présumé non non non non ñaari dossiers yi bokkul te bu leen kenn tëkkaleeti bokkul loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg bu leen kenn tëkkale parce que bokkul maintenant médiation pour lan nit ki droit am la àqam ak yelleefam la yoon moo ko ko may nañ ko may liberté provisoire nañ leen may liberté provisoire nañu leen atte ñun loolu rek la ñu wax loolu rek la ñu ñaan kon jàpp naa ne looloo fi jiboon ci ay question euh, mu ne waaw euh, c'est un violeur, que c'est un maître chanteur et qu'il a fait pas mal de vidéos par rapport ak autorité yi ba ñu fi dalee chantello ku mel noonu moo dugal tey kilifa ci prison par rapport ak kilifa li mu def Sénégal yëpp li mu def Afrique yëpp est-ce que tey seen mouvement bi vous un sentiment de dégoût jusqu'à vous dire que ne jaratul sax ngeen di xelal Sénégal yi non non non non tout du tout moi je pense que tey ci mbirum affaire kilifa bi laa xamee dayo bi sénégalais yi am ci mouvement Y en a marre en particulier ci laa xamee teg bi ñu teg ak fonk bi ñu fonk Y en ndax j'ai vu des sénégalais yu naqarlu yu amul leen métti j'ai vu des sénégalais yoo xamante ne nii ci lañ ci laay soog man comprendre vraiment fi niveau bi ñu bi ñu aj suñu jëmm yu amul solo yii kon dama leen di gën a delloo njukkal ñëpp ñuy jàppale waaye nag dama leen di ñaaxaat ci situation bi que ne nag aujourd'hui ñun ak ñoom ñëpp ñoo toogoon di observer am yaakaar que ne justice bi dana def liggéey bi war ci ci dossier bii waaye safaan wala ñu gis moo tax aujourd'hui amatul toog di xaar dañu bëgg ñu régler cette histoire lu mu gën a gaawee kon sénégalais yi ci côté boobu dama leen di wax ngàcce ngalaam waaye nag làbbali fas terewul fas bi moom il faut ñu gën koo làbbali kon di ñaan sénégalais yi di woo sénégalais yi ne leen gis ngeen taxawaay bi ci yaanaamaar am bi mbir mi taxawee kon nag tey bu ñu jógee te yéen xam ngeen li waral ñu jóg mooy que ne dañu toog gis yoon nag di nangu la kilifa moom muy ay ay àqam kon duñ nag setaan yoon di nangu ay àqu kilifa waaw kon nag looloo waral looloo wundu woon tey suñu waxtaan wi ak tasor xibaar yi di wax ne ay fan yu néew dinañ jibal plan d'action bi ñu teg dinañ leen ko yeggee incha allah rabbi bu ñu noppee ci waxtaan ak ñëpp ñu ngi ci waxtaan ak sénégalais kon dina wax.